action. salaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV di leen béggee bu baax a baax di am contentement ak mbégte jano yéen chaque jour ngir indi leen li gën fas ci bopp xibaar yi mbégte bi nag mooy toog ak sama mag di kan na mën naa ko lool borom Jurbel nuyu ko bàyyi ko mu nuyu internet yi mbay nuyu naa la. jërëjëf Ndeye Mbacke maa ngi lay fay di nuyu suñu xarit yëpp yi nga xamante ni bii ñoom tamit ñu ngi ñuy topp ci Leewtoo TV amati mbégte ak contentement ci ànd bi ñuy ànd ak ñoom saa su nekk ngir fas yéene leen jukkil li nga xamante ne bii moo gën a fës ci ëttu ëttu yenn kaay yi bind ci wàllu làmb. wante loo ci mën di dégg daal. samay namm moom yëkkati na say namm ba jakaw dóor ko ci suuf mosowee sa namm dóor daan na sama nom pont ayca jeudi 10 mars 2021 ka ñuy xëyee nag di doomu dangu doomu dangu la ci combat ba mi amee ki nga xam ne mooy Jordan li koy waxee mooy par favori pour le 15 mai Mbaye Babacar doomu dàngu loolu la ñu wax ci combat bi nga xamante ne bii moom moo dox ci diggante waral a moo moo war a dox ci digganteem ak ki nga xamante ne bii moom mooy Jordan combat boobu nag mi ngi war a am le 15 mai incha allah bu ci yàlla àndee. Mm-hmm. wante doomu dàngu li mu wax mooy bañul ne Jordan moom mooy favori ci boobule combat. Mm-hmm. bañ ko laajee lan moo waral loolu mu ne Jordan moom ma jiitu ci làmb te it champion yu bëreel ci làmb man jotaguma bëreeg champion yooyu yooyu ci làmb wante daal na xam ne yem na client ba nga xamante ne bii fa mu ko yekk fa mu ko nar a yekkalee dina ko jaaxal ndax man xele laa ba nga xamante ne bii sama yoon bëgguma kenn baare ko sama yoon bëgguma kenn di ma andil gàllankoor te incha allah su ma jàkkaarloo ki nga xamante ne bii moom mooy Jordan dinaa ko defal bagage daan ko ci jël bu gaaw. waaw du ma daan ko. loolu ayca contre serpent bu Cambérène ce samedi fils de Zalo gagné pour retrouver son sommet Mbaye Babacar. nee na loolu la bëgg daal di daan ki nga xamante ne bii moom mooy jaan jaan ju nu ñuul ji ñu naan ko le serpent noir kii wax loolu nag moom mooy fils de Zal fils de Zal nee na dafa bëgg jëlaat yoonam ndax. xam na ci li mu jóge xam na fi mu jëm te it xam na li mu bëgg mhm. nee na nag ki nga xamante ne bii mooy serpent noir mënu koo téye te bëgg na insha allah daan ko jëlaat yoonam daal di doxal daal di doxal làbbali fosam muy dem ca kanam te kenn du ko téye. Aïcha ca noonu nag la ñuy xëyee ci xët bu njëkk li nga xam ne mooy journal suñu làmb choc de rêve démarché par Ibrahima Diop rëg-rëg Sa Thiès doomu Double Less ba nga ne comme baaba ñëpp a ngi koy laam-laame ñëpp ko bëgg ñëpp a koy ñaan axul lamb yëpp bëgg ko presque ficelé nag Mbaye Babacar Ndeye Mbacké combat boobu mën nañ ne fi mu toll nii li ci des mu taxaw bareetul Ibrahima Diop nee na daanaka mi ngi waxtaan ak ñi nga xamante ne bii mooy ñaari camp yëpp muy waa kër rëg-rëg ak waa kër ñi nga xamante ne bii mooy Sa ku ne xam na ne rëg-rëg ci victoire bu rëy la jógee barki Dembo Ndiaye le vingt février ci digganteem ak ki nga xamante ne bii moom mooy guy gi wante ba mu ca jógee nag dafa am lu mu wax dafa ne saison ba léegi jëlee gu ko géejawaay mu mel ni daf koo tegaloon ki nga xamante ne bii mooy Lac de Guiers numéro 2 ak ki nga xamante ne bii mooy Sa Thiès mel na nag saison bi ki nga xamante ne bii mooy Sa moo ko gën a jege parce que Ibrahima Diop di promoteur ba nga xamante ne bii ci wàllu làmb lay yëngu nee na ci lu yàggul dara. combat bi nga xamante ne bi amateur yu bëri ñu ngi koy xaar combat bi nga xamante ne bi amateur yu bëri bëgg nañ ko muy diggante Sa Thiès ak Reug Reug nee na incha allah dana taxaw ndax mi ngi ci négociation yi te am na ci yaakaar mbaaru gaal gi moom Sa Thiès moo ci nar yéeg ah xaw ma moo ci nar yéeg daal waaye daal combat bi léegi mu taxaw kon bu dee lu Sa Thiès xooj nañ ko ay après ses soins médicaux en Turquie Modou loo mu ngi fii suñu gaal depuis lundi Mbaye Babacar gannaaw ba ñu ne dafa am gaañu gaañu ci épaule gauche bi maanaam baggu càmmoñ bi Euh, supporter ak staff bu Ama Baldé nag doon am xel naan est-ce que gaañu bi dëgg la wala du dëgg. Mm. loolu yëpp nag loolu yëpp nag ki ko mën a justifier daanaka moom mooy euh, ki nga xamante ne bii mooy le roi des arènes di Modou Lo ku ne xam na ne nag demoon na fële ca Turquie. Mm. ngir euh, faju ji woon mën nañu wax ne fi mu toll nii nag faju na ba wér dellusiwaat na fii ci réew mi taataan nañ ci ku ko jege nekk ca écrit ba. ne du incha allah ci saison bii dana bëri ak ki nga xamante ne bii mooy sëll bu ndaw bi nekk fële ca Pikine. ayca mu Modou Lo ñu koy ñaanal jàmm baax bu mu rétablissement champion wéral ak jàmm daal dellu soir parce que làmb ji soxla nañ combat boobu torop torop torop soq franc fixé le 19 juin bi ñu jëm tey nag Mbaye Babacar wala vendredi dinañ am ndaje bu mag ñoom ñaar daal di ci benn hôtel bu ñuy wax euh, hôtel jaaraama foofu la ñu war a daje bu juróomi waxtu jotee maanaam 17 heures. Mhm. ku ne xam ne nag soq yàgg naa bëgg a bëree ak ki nga xamante ne bii mooy franc mhm. combat ba nag taxaw na fi mu toll nii nara nara am incha allah bu ci yàlla àndee le 19 juin bii nga xamante ne bii moom la ñu dëgmal nara nekk combat bu neex wante tamit nara nekk komba ba nga xamante ne bii amateur yu bëri ñu ngi koy bàyyi xel ndax franc ku ne gis na parcours am ci làmb li mu def ci làmb simple ak li nga xamante ne bii ba mu duggee ci làmb dóor ba léegi mi ngi koy def mu nar a nekk combat ba nga xamante ne bii combat bu neex la waaye ki nga xamante ne bii mooy moor bu parcelle euh, waa suñu làmb dañ ko jot téléphone démb moo leen xamal ne incha allah ñaari mbër yi tey daañu daje ci benn hôtel bu ñuy wax jaaraama Ngor jaaraama la xam Ngor jaaraama waaw ma nga noonu foofu lan fa yéenee daje fa yéenee waxante nag seen première ndaje seen première face mu mel ni cin bu naree neex. su baxee day xeeñ combat bi mhm. fan lay fan lay mujjee mhm. incha allah wala lan lan lan la combat bi di annoncé mhm. incha allah le 19 tey jii bu ñu dajee ku ci nekk dana waxante sax ak sa morom dina xam lañ koy def ca noonu nag moom mel fils de Balla ginnaaw ba mu daanee nga xam te ne mooy général Malick xam ca bëgg a teg nag Mbaye Babacar mooy Goro Sock bu Parcelles war a bëreel incha allah moom mi nga xamante ne bii moom mooy fils de Balla wax nga ko général Malika la mujjee bëreel nee na fi mu toll nii ki nekk ci kanamam moom mooy fils de Balla moom mooy Gora Sock nar a nekk nar a nekk ku boobu tamit nar a nekk combat bu neex fils fils de Balla nag di mbër ba nga xamante ne bii mbër bu mot a bàyyi xel la ndax ci ay victoire la jógee daan na wës jàmbaar daan Balla gay junior daan tafaa Leer ba mu ca jógee ci la daan ki nga xamante ne bii moom mooy général Malika G donc G nga koy woowee. G la <laughs> G waaw mi ngi noonu ci la daan ki nga xamante ne bii mooy G wante fi mu toll nii ki mu jël avance am war a jëflanteeg moom kooku moom mooy. góor a soog nar a nekk combat ba nga xamante ne bii tamit combat bu nar a neex la komba espoir la waaye ñaari mbër la ya nga xamante ne bii ñoom dañoo am cër cër ci làmb wante tamit dañoo am dayo ci làmb te mhm. kañ nag mooy Alboury Alboury nga xam ne dafa ñëw ci làmb bees waaye xàll yoonam bi ñëpp daal di koy ràññee ñu tuddee ko nouvelle star moom Alboury waaw nekk phénomène ba nga xamante ne bii dafa naa mag la ci ndeene ndeene bu Kewel Info ndeene bu Kewel Info suñu reporter bi <laughs> wala ndeene bi nekkoon Kewel Info ndeene potay mbay baaba ah, nee na kañ mu ngi noonu nag daa mel nee na mu sañ suñu gaal 24 la léegi noonu nee ne moom mooy rakku ah, Alburi Alburi di mbër ba nga xamante ne bi dafa ñëw ci làmb ji rek andi isulu boppam dafa ñëw ci làmb ji rek andi ay feemu boppam parce que ni ñu koy waxee euh, mbir boo ci ñëwee boo yokkul da ngay wàññi te moom dafa ñëw yokk mhm. moom dégg naa ci benn kii sax naan bu demee bu tey roi des arènes dinaan xam ne ku bëgg jigéen la <laughs> mais fi mu toll nii nag talagul ay jigéen nag ay gel yooyu mais bu demee ba tey couronne roi des arènes Sénégal yépp daañu xam ne Alboury ku bëgg jigéen nag moom nag incha allah dafa am combat war a bëri ak ki nga xamante ne bii mooy Mame Jambaan numéro 2. Mm. waaw Alboury ma nga écrit sa njàmbur su ma juumul. Mm. nar a nekk combat ba nga xamante ne bii tamit amateur yi ñu ngi koy bàyyi xel wante Alboury loo ci mën di dégg. mbëru mm-hmm. diaspora bi la diaspora bi bëgg na rek nit ñee ko bëgg ci lan ci mën a bëree mën ah. ci lan ci mën a waxam mm. bu waxee stress bi bari dañuy deñ ah, macha allah borom damaa tëdd ba guddi ah. lekk ma moo tax ma tiit borom trois hamburger ci laa pare ci moom <laughs> te noonu nag nouvelle bu neex bi nga xam te ne suñu biir la amee ki nga xam te ne mooy Modou Anta sans frontière mu ngay jël soxna nag du yàgg dara Mbaye Babacar waaw Modou Anta incha allah le 14 mars bi la war a jël soxna gannaaw ba Lamine Seck bu suñu làmb jëlee soxla lamino bi baalu waaw léegi ki ci topp moom mooy Modou Anta bu sans frontière nekk fële ca seen làmb Modou Anta nag mm, suñu naataango la suñu xarit la di ka nga xamante ne bii ku ñu ràññee la ci làmb ji ñu koy ñaanal rek sëy bi yàlla defal ko ci barke mhm. defal ko ci njaboot gu barkeel mook Mati Thiam ñoom ñaar ñu dund ba fekkee seen njëriñu njaboot mhm. euh, ñu leen ñu leen ñu leen di wax heure ménage amiin di wax ne Mansour moo ci topp mañ Mansour dafa war a gaaw de damaa war a am njëkkee waaw yow tamit dangaa yow tamit gars yi xaw ma lu ñuy xaar demuma bàyyi ma ndax fu mu nekk nii ki nga xamante ne nii mooy Modou Anta dafa am xew ñu ne xew mm-hmm. reporter yépp la mm-hmm. mu daal di koy jëlaat jël nga xam ne mooy pël bu rafet di mm-hmm. reporter jigéen comme ñun daal di koy duppee bis bi jox ko deuxième njëkke kon maanaam xew bi dafa nekk ñaari yoon xew reporter yi ah kon pël bu rafet moom mooy deuxième njëkke bi non ñàkku rab dina toj jour boobu le 14. ah loolu du yomb. lundi ñàkku rab dinañ ko wàccee maa ngi ci ginnaaw maa ngi premier yaa yaa Fatima Dia ah, a xam. la ñuy jeexalee nag journal suñu lamb ba ki nga xam te ne mooy Balla Gaye numéro 2 le lion de ko euh, gannaaw ba nga xamante ne bii euh, bëre na ak Bombardier ba Bombardier daan ko Balla Gaye fi mu toll nii nag dafa mel ni Olof Ndiaye daf ne booy dem boo xamatoo fa nga jëm. da ngay delluwaat fa nga jóge woon. Mm-hmm. école 16 ba nga xamante ne bii fa la doon entraîné ca suuf sa. Mm-hmm. ca gannus ga. Mm-hmm. doon dem di ñëw suñu borom di ko defal ay ndam. Hmm? mu mel ni nag dafaa xawoon a gëj bu ñu waxantee dëgg. école 16 parce que ñu bëri ñu ngi doon jàmbat lan moo tax Balla Gaye gëj ci école bi lan moo tax Balla Gaye gëj a entraîné ak xale yi mais dafa mel ni. Euh, jàmbat boobu dégg na ko dégg na ko ma nga fa fi mu toll nii nag di entraîner di waajal li nga xamante ne bii mooy ay combat ñaata combat la sax ñaar wala ñett fu mu nekk nii ñett a fi des waaw mi ngi noonu ñetti combat muy Boy Niang Gris Bordeaux ak Gris Bordeaux mi ngi noonu nee nag mi ngi préparé te it fi mu toll nii mi ngi yëg ci yaramam daal la nga xamante ne bii euh, gëj na koo yëg nee ne incha allah pare na pour affronter ak ñetti adversaire am yëpp. allah Mbaye Babacar olof nee naa upp dafa baax ci lax bu tàng. dafa bëre ñëpp ne Balla Gaye numéro 2 mi amul contact maanaam contact moom ma nga ci yaramam. ba mu yeewoo écurie ba la dellu. mu mel ni tamit dégg na li nga xamante bii mooy liñ ko doon wax xam nga. macha allah sa suñu suñu mbokk reporter yi nga xamante ni bii dañu nekk ci làmb nekk ñu fi pour jay benn mbër muy mbër bi nekk ci suuf ak mbër bi nekk ci kaw lu ñu gis ci yow rek analyse boobu la ñuy def te li ñu gisoon mooy que combat ak ki nga xamante ne bii moom mooy Bombardier contact bi desoon na dafa mel ni nag dégg na loolu ba delluwaat na ca arène ba ma ngay dëggal bopp delloom bi dafa am njëriñ ci ñaar anam dina dellu pour moom mu am contact mm-hmm. maanaam nekk ci xale waaye dina dellu pour toog place bi nga xam ne mooy suñu papa Uh-huh. Balla Gaye numéro un binaa bi mu fi ba bayewu ko Balla Gaye numéro deux moom moo ko doon succédé fu mu nekk nii uh-huh. Uh-huh. Aïcha Mbaye dama koy bëggee bu baax a baax loolu moo nekkoon li gën a fas ci xibaaru làmb Mbaye looy tàggatoo xanaa di jaajëfal ñëpp di jaajëfal waa Njaareem nag sama dëkk di kontaan ci ñoom di lay ñaanal jàmm bu baax baax di la jaajëfal yow sama rakk ji macha allah di la féliciter tamit ci journée bu mag bi ñu génn muy le 8 mars di ci féliciter jigéen ñëpp di leen sargal ci bis boobu nga xamante ne bii moo nekkoon bisu jigéen ñi di ci sargal jigéen ñi nekk fii ci Leewtoo Leewtoo TV yëpp. Mhm. ñoom Fama ñoom Matu Aida ak euh, ñi nga xamante ne bii ñoom ñëpp ñu ngi ci biir kër gi mama Aida mama Ndéla Fall. ñu koy jaajëfal mais plus particulièrement yow sama rakk ji nga xamante ne bii. toj nga 2STV ca plateau ba ca lay dee TV macha allah <laughs> yàlla na la cat teegi kontaan naa ci yow ba suba ak jàmm incha allah ci benn ci beneen revue de l'arène amiin dama koy kontaanee bu baax a moom sama mag bopp bi nam mun naa ko loo xam nga ne ma fi toogee man kese damay wéet a wéet ba bëgg a dee di bëgg ci yéen bu baax a baax national international ñi ngi safoo Leewtoo TV di ñu topp partout dama ni bëggee bu baax a baax waaye revue bi nag dama koy jël ak may ko sama xarit sama genwaal sama raq sama mag sama lépp la daal ndax fu ma féetee moo bari boo xoolee côté bi day nekk sama mag nga xool côté bi mu nekk sama raq ju ndaw ndaw ndaw ma koy bëggee bu baax maam Biége Ndaw madame Guèye Séeri Lamine hmm, yaayu El Hadj borom anniversaire bu neex borom la huit jàmm ci yow dundal dundal ba doyal li nga bëgg sa xol yaa ko xam yàlla la ko yàlla defal monsieur Guèye nag mention spéciale à toi hmm, borom fi nga xam ne mooy port bëgg naa ci yow bëgg nga bëgg nga suñu xarit bëgg ay xaritam kenn du yow dundal ba doyal jox leen di daje ba ëllëg incha allah ci Leewtoo TV jaajëf